bon je pense que maintenant sama euh, papa bon ils ont dit que ne Karim dañu koy génne ci dëkk bi dañu koy auditer on va voir parce que affaire u annoncé bi il faut que ma xool benn système la mën a def ba gars yi dañ ko mën a xam donc je vais verrouiller tout su ko defee Macky Sall euh, il va avoir un problème parce que sama papa sama papa m'a dit que ne sa cible yëpp yow la Macky Sall son problème c'est juste pour moi taraxal ma mais on va voir le dossier de contrôle tout voilà voilà contrat de Annecy pour une durée indéterminée pour l'autoroute Corniche Ouest L'Annecy engage à partir de qui en qualité de ça ça ça voilà d'accord ça si <laughs> yëpp lay verrouiller ils vont rien voir duñu gis dara su ko allo euh, c'est Karim oui man la Karim mais Baldé s'il te plaît euh, euh, euh, pour diggante corniche ouest bi rond-point u Atepa ci corniche bi pour le kilométrage ñaata nga bindoon ñaata nga ne mais c'est toi yow man musuma laal xaalis ah non non non non non écoute Balde euh, Balde ma ne déglu ma je je man man man Karim musuma jël xaalis musuma jël xaalis dama lay laaj juste c'est combien jàppoo ko ok d'accord bon les dossiers euh, attends fépp nañu vérifier du ñu bàyyi dara voilà demande d'autorisation ah c'est pas important li nga xam ni attends que c'était la chanson dañuy jaay bandi rek maa leen gën a bandi voilà crédit euh, divise relevé d'opération du premier au numéro de compte chèque frais télé télécompense télécompense remise de chèque encaissement paiement chèque total général des mouvements attends mais sama papa dafa ne ma je suis avocat lépp looy def na nga xool noo koy verrouiller pour en cas bu ñu demee tribunal bu ñu gisee affaire bi xam ne c'est verrouillé 444. Voilà. Donc, je transforme les 12 millions, 12 millions pour un kilomètre de béton. Voilà, moom mooy prix normal bi donc le prix normal c'est 12 millions pour 2 ki 3 kilomètres. Voilà. 12 millions 3 kilomètres 12 euh, millions 3 kilomètres donc euh, il faut que ma <laughs> léegi léegi ñoom bu ñu ñëwee di auditer dañuy gis 12 millions mooy prix normal bi fii man maa ngi déclaré prix normal bi vingt cinquante quatre millions <laughs> moom déclaré daal di daal di fay 12 millions donc léegi ñoom bu ñu ñëwee il faut ñu xam kilométrage bi ñaata la foofu damay daanoo donc attends damay génne dossier bi photocopier ko modifier fii au lieu de 54 je fais 12 sur 24 taxe TVA accord de principe remise de chèque non identifié <laughs> yëpp si turu Baldé <laughs> signé damay signé rek mais par chèque mais Macky Sall dafa yàkkamti chaque allo oui mais quand même Macky dama la jox respect total non écoute-moi euh, non non déglu ma mënuma defaguma euh, passation de service te euh, pareguma ci liggéey bi quand même ak loo ma monti non écoute écoute Macky man Karim aw ma dara lu ma ragal ci doomu Adama. d'accord mais li ma lay wax c'est très simple je peux pas accepter aussi ñu may def pression pression passation de service dafa am ñu may régler may ma ma ne nga may ma tuuti ma naw ma dara lu ma tiit lépp loo leen si sama dossier yi vous venez sama papa euh, sama papa lui c'est que ni ci depuis ñu def passation de service ma ngi ci euh, dossier yi mais Macky avec tout le respect que je te dois may ma tuuti après nga appelé ok kon ñoom ñu ngi juste pour ñëw auditer <laughs> attends dossier dossier de passage autoroute à péage 444 million 444 millions 470 voilà oh la la la la <laughs> tu vois ñu bari dañu yaakaar ne dama dama def non dofuma et eh, je veux faire savoir aux Sénégalais li ngeen def sama papa li ngeen def sama papa yéen Sénégalais yi li ngeen def sama papa man sama biir xol amal na sama papa ak bu métti te sérieusement je vous dis li sama papa bëggoon loolu moo waroon nekk mais ni ngeen ko teel a ma jàpp man Sénégalais vous êtes inalité 100% mais mënoon ngeen na bàyyi ba ñëpp tuuti ah yéen ñëpp yéen a yéen a ñu toroxal ma depuis boobu maa ngi li à gauche à droite dans tous les radios du Sénégal man euh, Karim wax sa xalaat Karim journaux yi Karim mais vous allez voir di ngeen xam je suis un ancien financier de banque. <laughs> Euh, Of. Ne çekiyor. Şu şöyle. séance quelque chose euh, de la minute trafiquée, quelque chose. Attends, attends, attends. Le temps de séance benn affaire bu ndaw ma naan café je reviens sur ça. yàlla yàlla waxul kenn dara Allô Madame Ndiaye, s'il vous plaît, un café. Un café, oui, un café bien chaud. Un, un café. Un café tout non, merci. <laughs> Ok, tout à l'heure.